ñu sëriñ Tuubaa yow kon dangaa tagge comme ni bu sëriñ tagge mu ne waaye bokk ñu daane ne ko tax mu ne mu ngi ko jàngal ku nit jàngal koo jàng tàgg kama laxul ilmi fiihi annahu basarun wa annahu loonuhu ahsanuhu afkaar daanaka la xalaat mu tagg Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ba xam mooy kan comme ni mu ko waxee ni boo yoree koog dem ci géej gi danga koy laaj ngay dee kooku damaa tuub waaye géej gi muy ñu ne ko waaye yow tax bokkul abdaale mu ne ñoom nit da leen a jàng ñu ne ko yow nag mu ne allama ni xalimu inna saaxira mi maa yabda wa kafa min saaxira yàlla ma xamal ci ndaxal bi ci xam-xamam yàpp mu tëdd na ci jéem a kenn mënu ko dara ba demee ci biir am na sunna raaman wara nay la fadli musrikiina waaye nag wal fadlu inda rasulillahi nee na gaa ngay jëkkante di sàkk ay ngëneel daw jëm ca ca suñu borom te Ahmad Bamba nee na ngë ngëneelee mag ci Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam te man nañ ko rafaat rek nee na Mamour Diop maa gën a gaaw maa gën a jekk dox yi maa ko njëkk maa jël lu fa nekk ku bëgg ci man ngay jàpp ne gaa yi dañuy naan géej man may naan ci dënnu borom géej gaa yi naan woon géej bu ñu ñëwee jaaxal ñi man ci naan ñi mënta naa liggéey waaye man mën naa ne woon ci dënnu borom géej su ma mën naa ne woon géej nee na gaa yi naan géej gi ñëw may naan ci dënnu borom géej gi ñëw te gaa yi naan géej gi yëpp jëm géej ma dem ci dënnu borom géej jël géej jëm ci biir fas yi mi ngi tubaab njaaree bu dem te du ko seet mi ngi mi ngi may seet mi ngi tubaab njaaree bu dem te na ma dem ci suñu borom ñëw fekk géej tubaab njaaree ma jël ko dugal ci biir fas yi daal wujudul barri barri shafaay seen jàng xafaay doy na ak jaamu yàlla dañuy wax ne wàllu yi seen martaba ci yàlla kenn xamul te wax ne saxaaba yi fos yañ doon war pour it may génn ci gémmiñu fos ya mu ëpp doole Sëriñ Tuuba ne maa ko mii daal di tëdd ko si tata su ma taal li ma doon bind moom dara di ci dox mooy ma xaw wax bu gàtt def di rek dégg ci wax day wax ne lu te yëgal ne ab sëriñ bu jël ay jox ko kem loo jëfal nag sax sëriñ am lu na toll ciy njariñ loo jëfalul nag sax sëriñ boo ko bëggee yëpp doo ko am Ahmed Bal wax ne yaa ayyuhan nabiyyu dax dunyaaka qabla al mamaati wax na afkar yow aji yow bi bàyyi sa adduna ci jublu sa àllaaxira bala ngaa faam ndaxte adduna moom nii rek la ku dëkk fal yow wa tukki ka xaddaar te suufu taawal wa te suufu sarmada daf lay reeroo tey jooy loolu suba bég loolu ay jamono mer loola faw tax mu ne laa taxtari dunya bi uxraya man baaxa nooran bi du jaar fasayit la sëñ Moussa Ka wax ne njëkk war àdduna sa ndam bala laa war bëgg laa nax ba war la rek a digg naa ku mu àndal lu yàgg yàgg dalay war njëkk ko war muus ba dee ba sa ci kër war na ñoo xam ne ñoo la ëpp lay kàttan ëpp lay biir te seeni biir ëpp say biir Ahmed Bande wax na wa arxabu asiyaa lil amwaali rabbu ila dunya wa arxay walaw suwayxatan xam faqat li yaxmuloo saariatan tanfa'uhu in xarfaloo ki nga xam ne dafa faatu bañ teg ko ci ak jaar jëfal ko boromam lii gën a bëgg mooy dellu si waat àdduna doon ci waxtu lay doon am na lu tax àdduna dëkk la boo xamante ne nii amul fu muy yem xéwal ya bari na te loo ko deful doo ko fekk kon ku fa dem di nga bëggaate ñëw ngir gën a góorgóorlu kon yow mi nga xam ne yaa ngi ci demagoo war naa am na mel yoonu sëñ Tuubaa bi nag jëf rek jaamu yàlla ak liggéey li ci gën a ràññeeku mooy liggéey sa alal du leew nga di ko jox ci yoonu yàlla loolu sëñ Tuubaa njëkku ko tàmbali yàllaa ko njëkk a wax ci alxuraan matalul lazina yunfiquuna amwaalahum fii sabiilillaahi kamatali habatin anbatat sab'a sanaabil fii kulli sunbulatin mi'ata habatin wa laa yudaa'ifu liman yashaa'u wa laa yuhaasibu alayhi loolu alxuraan ñi nga xam ne dañuy jël seen alal bu leew di ko def ci yoonu yàlla ñu mel ni kuy jël pepp pepp fu foo gas ba mu xóot dugal ko ci biir juróom-ñaari pepp li ki def yàlla taw am ndoxam def ci juróom-ñaari bu nekk mu def ko téeméeri pepp nee na man yàlla ñu laay fayee ñi nga xam ne dañuy jël te yàlla tax kon dama ngeen la boos génn ak addi yi jox na gaaw te bari te xamal ba mu wax ne boo joxee nag boo boo laajee sa xool day daal na laal ah boo ko joxee nag day ñàkk

ñu wax ko ne yow doo julli doo woor bu nit ñi jul woor yow ngay joxe ay ndogu mu ne bindal ndogu boo bindee teel bind keer al sax xeet muy ndogu boo ko seetee ñaar fukk la juróom-ñeent weeru koor ñaar fukk la mu ne bis bu nekk naa ci am weeru koor kon joxe ci la nit ñuy rawee waaye gën a góorgóorlu a jaamu yàlla ak di liggéeyal nekk bu ci man nga di ko def te yàlla rek tax gën xam naa am na fi ba mu doy jox waaye paaka lu mu ñaw ñaw dañ koy dàgg muy ak taal bi ci ñu ma tudd yëpp boo ci gis da nga yaakaar ne moom moroom ma doole xam ne da ko tàmbalee ci jëwriñ ki ci gën a mag ki ci nekk ki ci gën a tudd démb damaa ñëw suñu moxtaar ne ma ñu seen jëwriñ bi moom baax daal la boo xamante ni man ko ñëpp noonu la <laughs> kon loolu jar na sant yàlla yow ma nag loo naa si bi imaam yi mbooloo moo ngi ci jiite la ñuy àttee kon ñu gën a góorgóorlu ci ak taawubee am na waaye ñu gën ci gën a góorgóorlu ndax Sëriñ li mu gënoon a bëgg mooy ak taawubee Sëriñ Seex Ahmadu léegi jamonoy wax dafa wax ne ku yo ku yamuwul dara ku tegg niwul du dara loolu wax ñëpp ci Sëriñ Tuubaa wax ne wa jaala xusnal adabi yux fi jaxaalata wuquqa nasabi rafet ay teggin day nëbb ak réer ak borom askan doomu aadama boo xam ne am ay teggin rek kenn dootu liggéey fu mu bokk bu baax rek la ñu wax mu wax ne taalibe yi dañoo mos a daje ñoom ci moom ne ko dañoo bëgg nga bindal ci téere boo xam ne buñ ci jaaree ak ay teggin ba demee ci naa yokk daay daal loolu wax ma nga naan xaalis daal wa in yow ma soo ijaaba baxdal murid ci na saw yi inaaba الطلب ونقما حوى تعبدا ليتعبد وذاك وجبا na yëgal a man ci a Bamba tey borom wuyu laa gën ci murid yi dañoo fàkk ma bindal leen ak téere boo xam ne buñ ci jaar ak ay teggi daan na ay teggi loolu lu la ndaxte lépp lu waaye sàkk te moo ay teggi dina ñàkk loolu boo dee dem sawara kon lu ci waaye am na nga ko yokk baykat boo xam ne lay sal yëpp yi mu def yi mën naa te valide ko bali yëpp yi yëpp yi mu ëjjuwal adari ki nga xam ne ndeyam ak bàyyam dafa faat ne kooku ak gis ñoo ko koy firi mu nekk amul xam-xam mu amul ay lay sa jamaa bi aslu bi rusu yu ni naa bali jamaalu jamaalu ilmi wal adabi nee na yére yu gàññeew ak ay takkaay nee na loolu du taar ñu ko luy taar mu ne taar mooy tegin taar mooy xam-xam moo tax Seydina Ali wax ne lay sa di laysa sujaau ladi yaxmi fawalisuhu yow ma matahaani isaama xarbu taxtahin lakin man xadda tarban wantana adanan anil mahaati fa saaka سيد Tuubaa الأدب الأدب al adaba al adaba وهو أن تبر أما وأبا والعم هو سيد الكبير والعم وأخي الكبير وصيت سيد الكبير في بر وكل من سمع عليك تكرم وكل من صبر عليك ترحم أيوة تيكي أيوة تكرم أيوة تكرم كل ما تندعي كدف كل ما تندعي كل ما تبعي كدف كبعي ku la féete kaw nga def ko mag ku la féete suuf nga def ko rak commencé bi yow wax wax comme sa bopp foo fekk ab sëriñ la lewal ko njëkk nee na ab sëriñ rek da yeyoon njëkk kon tey lu am solo la lu ñoroon sëriñ Tuubaa demal demal na ba ne waj xam saxiira naa yi waxtalul kabiir waj xam kabiir naa yi وكان قلوبنا على التوجد لا تناصر ولا تعاصر ولا تحاصر ولا تناكر ولا تناقض ولا تناكر حتى نصير المسلمين خاصين والمؤمنين المخلصين صالحين ثم نستعرف قبلك جرجل جرجل جرجل جرجل جرجل جرجل جرجل جرجل جرجل جرجل جرجل Thank

Ja.